di nuyu Abdoulahi Guèye Siis sëriñ baa ngi lay nuyu di la ndokkeel ci sa taxawaay ci Medina ndax waa Medina dafa am contrat bu leen lié ak Cheikh Seydil Hadji Malick sunu papa Alioune Niang di doom ci sunu maam Fatimatu Si mi taawu maam Safiyatu Niang dafa ànd ak ben xalel di doxantu jóge ci kërëm dem ci armeelu Tiwaawan yi ziyaara fa ba nopi génn taxaw joy joy yu metti xale bi laaj ko pap Aliou mba jàmm la muni ko sama xala dem ci sayyidul Xaji Malik muni ko lutax muni ko fi ñi tëdd bi ko Maodo di rëdd di ko tuddee baqiya ba ca Madina kenn xalaatewul woon ni ci jamonoy Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz quartier bii ñu fi rëdd Médine lay tudd looloo ma jooyloo Médine googu sunu bàyyi maam Alfasi mii fa la dëkk sunu maam Tabara Gay njëkk fa jënd kër rëdd ko tuddee ko Daaru Salaam kon yéen wa Medina am ngeen contrat bu wér ak Cheikh Seydou El Hadj Malick contrat bobu nak njabotam ñëw garantie ko Cheikh Seydou El Hadj Mouhamadul Mansour Seydou Qawmi Cheikh Seydou Aboubacar si radiyallahu anhu ci rue 15 Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib ci avenue malik si muy avenue bi gëna stratégique ci dakaru nga xamni après avenue Blaise Diagne mawdo lañu tuddé avenue bi gëna stratégique ci dakaru bi nga xam ni mooy intervenir entre Plateau et Médina te yi Maodo symboliser ci biir diine yépp foofu lañ ko tabax institut islamique muy daara ji RTS ci li ngay dégg ak li ngay gis ci xadara yu kawe ya polyclinique hôpital nekku fa poly mooy plusieurs dañoo jël la Dantec la muy def jël Sane la muy def jël Gaspard la muy def jël Abbas Ndaw la ñuy def yooyu yëpp ñu bokk ko tënk ci polyclinique loolu li muy wane mooy Seydul Xaaji Malik radiallahu anhu bul nufuusa ci mboolem xeetu jàngoro yi ndax mag da daan yar di tàggat di tàggat bi tàggat di tàggat bakkan ba yegg ci jikkoo rëy mu xam ni du domenam mu bind lettre ne la yow kat dama bëgg nga ñëw demal ma ci sa baay maam alfa si dëkk sàngam boo demee nga yóbbul mu ko lii te jox ko lettre bi nga yegg si jox maam alfa lettre bi mu liir ne la ah mbaa yàkkamtiwuloo di fi toog ay fan de ndeke lim ko wax mooy kooku kat dañ koo jur yaakaar ci yàlla jox ma ko waaye damaa dab ci moom rëy te li ma jàng jikkoy rëy mënu koo dindi ma bëgg nga dimbale ma ci bala muy ñibbi loolu jóg ci moom nga nekk fa jàpp ni yóbbantee la fa bàyyi fekk yow dañ lay faj te xamagoo li xew motax xetu jàngoro yi ba xetu jàngoro yi bakkan yépp Seydul haji Mansour neena yow Cheikh Seydul haji malik rubta an nufusa ci mbollem xetu jàngoro yi li dinillah tarbiyatan bakat ba nga baye bakkan yi baye kenn ku nek ak bopam fal iblis bépp cër bu iblis wara am ci doomu adama mabtasama iblis amuko sax bay kekku moo tax mu daan wax ni bañu ma kenn dem moom Maodo waaye xaar leen ba ma pare ci yéen nga jóge ci polyclinique nga jóge ci polyclinique nga dem ci Sonatel nga xam ni mooy recevoir appel yépp di transférer message yëpp lolu ci hadra Cheikh Seydil Hadji malik ku ko xam ci tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ak ci diine ji ni tax ñëpp bokk d'accord ci mom te ku lim loo lim am ko desal ñëpp bokk ko djublu te kenn ku ci nekk jox na la sa ëmb te ci loxom la jaar nga wëlbatiku poste bi li jóge ci hadra ya Maodo di ko réceptionné moo tax Baye Alxaaji maxtaan Ñang mos na ma woolu ci néegam bi ma ñëwee toog mu waxtaan ak man ba noppi daal di génne benn crachoir ci suufu ron lanam ne ma ndax xam nga lii ma ni ko waaw mu ne ma lan la ma ni ko nit ki lay yàbbi mu ne ma waaye nag dafa am lu ma la ci bëgg a xamal te maam Seydul Xaaji Malick amoon na ko ci suufa ron lalam waaye daaw ci tifli li mu ci daan yàbbi mooy ñi koy ganesi te buñ ko ganesee mu xam ni ñii waruñu fi toog ca lay rëdd la muy rëdd yàbbi ko ci dënnam ne la xool ko nga xool ko ba mu ne la xam nga ko nga ne ko waa mu far ko ne tàllal ma ñaan la da jóg dem لا تكتب بالأحداق لا بالأوراق تبعي أبو بحبة شاء الحاج عبد العزيز من كوي خلت أه الحفظ الواقي واو تكتب تكتب بالأحداق لا بالأوراق دم توب أفنيو مالك سي ba fekk nag ka nga xam ni moo doon loxoom di kóoluteem di waxtandoom muy Cheikh Al Hadji Thierno Saïdou Nour tëdd ci avenue Malick Sy ak représentation bi mu am ci dundu Maodo ba pare tëddaat ci avenue bi waaye li gën a yéeme nag ci avenue bi mooy Maodo géej la sapeur pompier nekk ci avenue Malick Sy wa jaalna min al maai kulla cheyin xay nga xam ni dundinu ndox ci biir lépp lu nit di jëfandikoo dundin boobu la Maodo am ci biir xolu jaam ñi ak ci seen ruux ñu ni waaw sapeur pompier de mooy fay lakk gi waaye bu ndoxam jeexee du xam fu muy tibbee ci ndox ñu ni aha kay Maodo géej la waaye la ci gën a yéeme mooy wajaalna min almaai kulla cheyin xay te alxayu huwa allah alxayu valeur numérique am 18 la te ku soxla pompier 18 ngay tàppe kon contrat bi nga xam ni moom la Medina am ak Cheikh Seydou El Hadj Malick bu ci lu mel nii bokkul woon xanaa leneen di fi xew lu dul lii kon waxuma gàcce dina am waaye dinaa wax ni mag ñi duñu kontaan te Serigne Babacar Mansour du kontaan waaye xolam sedd na ci yéen. kon imam si sa waxtaan wi fi waxtaan jëmee ko ci Cheikh Seydou El Hadj moo ñu taxoon na ubbi parenthèse bi. yal na yàlla fay la yal na yàlla wéral la yal na yàlla sàmm la ñoo ngi nuyu sunu bàyyi alxaaji Mamadou Seck mi ngi nii toog moo jur Habib moo jur màggat moo jur Cheikh moo jur njaboot bi yëpp yal na yàlla guddal sa fan darajee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Papa Njaga ak njabootu alxaaji Maas Mbeng yëpp te di teg nuyoo bi ci loxo Marie Pierre Paye ak soxna Astu di nuyu ñoom libaas di nuyu seeni rakk di nuyu seeni jigéen ñoom Maymuna ñoom soxna Mati yal na yàlla yokk leer seen baay bi jaaxe nabil Moustapha sallallahu alayhi wa alxaaji Mansour Mbengit ñu koy nuyu di ko ziyaara di nuyu colonel Habib Seck di nuyu sunu yaay Ngoone Ndooy yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla dolli ko wér di nuyu alxaji màggat Seck ci taxawaayam moom tam di nuyu soxna jee astu Diop soxna awa seen soxna kinne cuun ak mbooleem ñi topp ci seen gannaaw di leen jàppale di beral cant ak nuyoo ak ngërëm alxaji Ousmane Sarr Ousmane sëriñ baa ngi lay nuyu mu ngi lay ndokkeel mu ngi lay sant mu ngi lay ñaanal yàlla fa lillahi alhamdu wa di beral can ak nuyoo ak ngërëm alxaji Samba Kamara Samba sëñ Babacar Mansour nee na jërëjëf li ko gën a neex ci yow mooy doyloo li nga am yam fi nga war a yam bay alxaji Mansour radiyallahu anhu nee na ku juddu ñëpp xam la nga màgg réere sa bopp nee na yàqu dee yenn a yem dañ la robagul waaye nee na ku judd ñëpp réere la nga màgg xam sa bopp nee na garab bu la neex yendul jàmm rek a la fay fekk waaw boo juddoo ñëpp xam la nga màgg xam sa bopp nag loolu la dab ci Samba Camara sëñ baa ngi lay nuyu di la sargal di la ñaanal yàlla bu baax di nuyu ñoom Abdoul Aziz Mbaye Pape Dagoor Pape Mansour sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen sant ci seen taxawaay yëg na ni seen maam Moussa Allé ba mu fi jógee ba léegi liggéey bi dogul ba yàlla defal na leen sutura tànk bu ngeen teewul sax ku woy seen baat la roy loolu nag dara dara dara mayewu ko lu dul la fatahnaa alayhim barakatin min as-samaa loolu rek a dugg ci mbir yi ba indi ko fii yal na leen yàlla fay seen taxawaay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama huwa dawxatul uzma Seydi El Hadji Mouhamadul Mansour radiallahu anhu mooy tagg rasulullahi bi ñu wax représentativité yonent bi ëllëg ca kanamu yàlla ndax la fay fenk ci tàngaay nee na ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku fay yaakaar ker boo ko yaakaarul ci moom yendu ci naaj wi mu ni huwa dawxatul uzma yuwallu dees na kerlu bi zillihi ci keru yonent yàlla muhammad yaburu bila mannin wa yaddu bil foofu nag dafa am lu ci saydul qawmi jàngale mu ni yemunnu moom rasulullahi dana maye yemunnu dana xéewale yemunnu dana seddale la mu am bilaa mën nin te du ca teg baat bu lay teree jëfandikoo teraanga ja man mën na min mën nin mën na laahu lahu man mën na من من من الله له من من من أعطي من من من عطاء من الله له أحسن الله عليه نحن لك ولا سوف يعطيك ربك فترضى شيخ الحاج منصور ينتي صلى الله عليه وسلم خمنني من من من من الله عليه moo tax dana maye te du ñaaxe والتوحد العظمى يظل بذني يمن بلا من ويرقي وينفي وينفي دفاي تري وينفي دفاي دق المعاصي موي نديغال يالا تي لان ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وينفي المعاصي ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى موقع تخدي وخني وينفي المعاصي moo tax la ko yàlla sédd ci wala saw fa yu'tika rabbuka fa tarda moo tax moo tax sëriñ Babacar Mansour nee na ku ngeen mën a dimbale dimbale leen ko te dimbale ko ca la ko koy tax a jariñoo nit kenn du ko solal mbubb may ko xaalis may ko ceeb gunge ko ba ca buntu kër ga naan ko góorgóorlu na rees jàmm moo ca gën a jekk góorgóorlu moo tax sëriñ bi di ñu delloo ci ñeenti aaya nee na bëgg na ñépp nag ñu natt ci sunu bopp ndax jamono yëngatu na waaye jamono yëngatuwul nit a yëngatu ndax meloom benn bi mooy zaharal fasaadu fil barri wal bahr yàqu gi yàlla nee na feeñ na ba feeñ ci yi nga xam ni sotte woon na ci sama loxo mel na mu war a mel te bi ci ëpp solo mooy géej gi ak jéeri ji te ku tudd géej gi ak jéeri ji tudd nga écosystème ñu ni yàlla lu ko yàq mu ni bi maa kasabat ay dinnaasi yàqowul fenn fu dul ci seen ay loxo sëriñ Babacar Mansour nee na ñun ñi fi bokk toog ñépp kenn ku ci ne am na ci wàll aaye bi ko topp من فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ينتبه صلى الله عليه وسلم وحني تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا فمن اتبع هدايا كان لك يالا نم مويكما تقبل ينتبه كما رويا رسول الله فلا يضل ولا يشقى yonent bi nag bëgg a jël melokaanam ak na mu mel waxul ni bàyyi naa fi sama bopp ndax man damay toxu waaye taraktu fiikum am rëy bi bàyyi naa fi liñ ma waxloo ak li ko leeral maa in tamassaktum bihimaa fii ak yéen a ngi ci sukkandiku lanta tadillu du ngeen sànq du ngeen sànku moo tax Cheikh Sidi Ahmed Tijani Chérif radiyallahu anhu yéegal ci tariqa bi إذا سمعتم مني شيئا فدينوه بميزان الشرعي فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه آه. سيدنا الشيخ أحمد التيجاني شريف نانا رضي الله عنه لونين دقني ما قوخ ولا يوني الشيخ نانا بول ورانتي بول خلو بول تيسنتي جلال وحجي نكتكو القرآن boo ko ca fekkul natt ko ci sunna boo ko ca fekkul luñ ma sosal la tegal nele boo ko nattee ci alquran natt ko ci sunna mu tolloog waxu yàlla ci alquran tolloog waxu rasulullahi ci sunna man cheikh maa ko wax ndax génnuma fi ma balle ñetteelu aaya bi ñetteelu aaya bi te jëm ci ndaw ñi sëriñ bi nee na dara xewul kenn ku ci nekk seetal li mag ñi bàyyi woon ci sa loxo noo ko téyeeg seen gannaaw fa xalafa min baadihim xalfun kër ga tool ya jàkka ja léegi ndax kër ga tool ya jàkka ja la wala kër ga place ba la jàkka ja la fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata li nga xam ni mooy tàqale yéeféer ak jullit bu jullit demee di yeewu ci kër ba mënatul a julli wala bu kàbbaree dafa am soxla ci yàlla kooku doon yéeféer bañ a julli sax yàlla xam li nga doon moo ko gënal yàlla nee na sax bu ñu bàyyi woon julli gi waaye wattabau shahawaati topp seen bànneexu bakkan ba teg ko ci palaasu yàlla sunu boroom nee na fa sawfa na xayya nee na ku màtt sa loxo wiccax ko loo dajal man la ñeenteelu aaya bi mooy ba ma tuddoon sànq walaw anna ahlal qura ahlal qura nag dina tekki senegaal dina tekki Europe dina tekki amerig dina tekki Asie dana tekki Guinée mën nañ ko firee Mali mën nañ ko firee Gambie mën nañ ko firee Sierra Leone mën nañ ko firee fépp walaw anna ahlal qura amanaw bu doon sax nañu ca la mag ña saxoon ba am lañu ñu am wattaqaw mel na mag ña meloon ba am lañu ñu am la fatahnaa kon li tëju woon ubbeeku alayhim ci ñoom lu muy indi mu ni barakaatin min as-samaa'i liy dugg ci mbir yi di ko doxal te xamoo lana ndax bëri na ku fi tekki tey fii nga defee ni sa njàng la wala sa jàmbaar la fekk ba ngay nelaw maga nga toog ci ëtt ba di la ko dagaanal te yëgoo ko ba ngay nelaw maga ngi toog ci ëtt bi trois heures du matin du ko fekk ci kaw lal fekk ni nga mal tey maga la ko dagaanal wal ardi bërki démb dama dem Jolof Sëriñ Babacar Abdoul Aziz yónni ma may xool nag yi ci àll bi rek ma ne suñu borom mooy xakim xoolal industrie laitière ku ko bëgg samp fii ci Sénégal li muy laaj ci alal suñu borom jël nag def ko industrie laitière muy lekk di transformer ngay ratt di ko jël mu jël yamb def ko ni jël lu toll ni compagnie sucrière sénégalaise def ko ci biiram muy naaw nekk ci fleur yi di ko jël dem di ko génne te nit liggéeyu ci jël industrie laitière def ko ci biiru nag nag wi dox mu yëg ni industrie moo nekk ci biiram muy lekk yàlla di transformer la dugg dugg fa indiwul xetu deret te biiru nag yépp deret la ak la nekk ca mbaq ma te xet ga neexul nga rat lu weex tàll génn te la génn nuruwul dara la ak la nekk ca biir ba kon Serigne Babacar Mansour nee na li xew nañ ci natt sunu ngëm sunu ragal yàlla ku bëgg a xam noo toll ci yàlla dangay ngay natt nu yàlla toll ci yow la fataxnaa alayhim barakatin min alsamai wal ard mu ne walakin kaddabu la doyoon mag ña doyul ndaw ñi li doyoon mag ñi doyul ndaw ñi te kenn ku ci nekk fa yàlla fekk sa baay ba nga judd boo fa màggee la nga fay xeeb nanga jàpp ni la fa yàlla fekkee sa baay ca nga bokk ma ni kenn ku ci nekk fa sa bàyyi toog ba yàlla fekk ko fa boo fa màggee di fa xeeb dara hmm. na nga bàyyi xel ni la ngay xeeb la fa yàlla sekkee sa bàyyi yow ma fay xeeb dara ci nga bokk boo tax ku doyloowul la la la sa bàyyi doyloo woon ba am la mooy walaakin këzzabu yàlla nee na fa axadnaahum bi ma kaanu yaksibuun sëñ Babacar Mansour nee na ñeenti aaya yii nañ ci bàyyi xel dara xewul lu xew ñun ñoo ko xewal système bi yàlla tëralee àdduna lépp a ngi ci gisoo xale yi ko wax mu ni damaa bëgg a tekki moo waral jël gaal yi te xam nga kuy tekki li takku yonent bi Chérif na xam nga lool li xale yi naan damaa bëgg a tekki xam nga li fasu xam nga ku koy tekki yonent bi ko xam ngeen nu mu koy tekkee xamu leen ko ah waaye xam ngeen ko kat salaatan tanxallu bihi al uqadu salaatan <laughs> tanxallu bihi al uqadu ah kookoo koy tekki bi kon nooy nooy waxee ni damaa bëgg a tekki ba pare du mooyu kooku fa man ittabaa hudaaya te muy rasulullahi kooku li li li fas wu kooku rek ko mën a tekki sëriñ bi nee na mi ngi ñaax njaboot gi ñu dellu siwaat ndax ñett kumpa la ci nit te mag a ciy dimbale nit te mag mu jubóog yàlla moo ci mën a dimbale nit foofu laay daanee lay wax kañ ngay dee kumpa ci nit lu yàlla dogal ci yow kumpa la ci nit fu sa mbir nekk kumpa la ci nit ñett yi nag ku ci bëgg dimbal faaw nga ut kilifa gu jubook yàlla moo tax ma waxoon ne ku am sëriñ topp ko waaye ku am kilifa déglu ko ndax ku kilifa njaboote bëgg-bëgg rek ngay indi ci moom waaye boo waxtaaneek moom la gën ci yow la lay digal nit nag la gën ci moom moo koy dimbale ci mujjam sëriñ baa ngi sant ñépp di dénk ndawi réew mi di leen ñaanal yàlla xam na ni tukki ak dundu nit a ànd waaye kenn ku ne mi ngi lay ñaan nga seet ni nga koy defee nga seet ni koy defee di ñaanal yàlla ñi yàlla joto moom ci géej gi yàlla na leen yàlla yërëm xew-xew yi fi am accident yi fi am yépp sëriñ Babacar Mansour mi ngi tàllal yàlla loxo di leen ñaanal yërmande di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala xaadisa bi nga xam ne moo am ta bakkan yi dem ci yàlla na nekk seen jotu bakkan ci seen digganteeg seen borom di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala li rëcc ci réew mi ba kenn ku ci nekk xamatuloo cooy taxaw yal na ko yàlla delloo si te yal na dellu si jàmm ànd ak dal ànd ak sutura ànd ak sag te yal na yàlla delloo ci lépp lu mag ñi dagaanoon yàlla te nekkoon xontu réew mi ñëpp daan ci dund ci kaw teraanga ci kaw bokk ci kaw sutura ci kaw xaritoo ci kaw ndaw bu rafet yal na ko yàlla delloo si ci réew mi yal na yàlla saxal diine yal na yàlla saxal ñu ci tariqa bi yàlla bu ñu juyëb suñuy kilifa ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ñi ngi beral cant ak nuyoo nag waa Mourchid TV waa Asfiya T24 Habiba TV ak ñi fi teew yépp yal na leen yàlla fay Serigne Babacar Mansour gërëm na leen ñaanal na leen yàlla ndax xam na ni yéen ñëpp njabootam ngeen te lii itam moom mooy dimbale diine ji mooy dimbale tariqa bi mooy dimbale mbokk gi maa ngi nangu nag ci làmmiñu Baay Yusufa jóg mii mu wax wax bu am solo nee na sëriñ bi dafa toog ay bokk toog ñu joxe ñaan ne nañu ñaanal xalifa bi mu ni déedéet li ñuy ñaan na ko ku nekk ñaan génne ci boppam te yéene ko moroomam gaa yi yàlla yi dañu am seen jargon de mu ne na ñëpp ñaan te bu ñaan gi sottee kenn ku ci nekk li nga ñaan génne ci sa bopp te yéene ko sa moroom mu firi ñaanu maam Cheikhul Hadji Umarul Fuuti sultaanul aarifina sëriñ daf daan wax yàlla yàlla na nga faj aajooy jaam yi fajaale ci sama ajo ñoo ngi nuyu waa police di nuyu sécurité bi fi nekk yépp yal na yàlla barkeel seen liggéey yal na yàlla sàmm seen njaboot yal na leen yàlla defal ak dal ni ngeen di nekkee ci wetu nit ñi yal nañu yàlla bokk wuutu ci yéen sàmmal ñu leen sëñ Babacar Mansour nuyu na ñëpp ziyaara na ñëpp di sant di gërëm doomam Ablaye Fall Binki mi nga xam ni moo jël sonorisation bi indi ko fi ngir dimbale nit ñi ci li ñuy wax yal na yàlla defar sa mbir ñi ngi ko bokkal tamit ñu téye ko di ko jàllale yal na yàlla faj seen aajo te yal na matériel bi bari te barkeel ba lu ngeen bëgg yal na leen ko yàlla defal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam delluwaat di ziyaara sunu kilifa sunu sëriñ sunu baay mam alfasi sunu bàjjan sunu yaay soxna fatimatu si bintu cheikh alhaaji abdul aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf yal yàlla fay. bi ngay wax kañ ko wax rek di ma ma ma ma teg ba ma pare ba Maxtaar doo wax sa soxla moo tax ma dégg nodd moom ma doon def parrainage noonu nag loolu sax mooy lu jaar suñu xarit ñu ngi lay ndokkeel bu baax di nuyu Pape Youssouf sëñ Moustapha. Chérif Cheikh Omar bàyyi ñu kenn macha allah di nuyu suñu sëriñ Cheikh nag daf koy tooñ rek macha allah di jéggulu Cheikh euh, petit bi ma jotee yëgal ma bés bi tey ci suba dañu xëyoon ànd ak waa jamaatul Nuur demoon Mbuur njaal bu ñu fa amoon bu ñu fa jógee ñu soog a dem ci waaw xam naa nag ma def yi fi njaayee nga toog cere yi dugg ci biir naa dallu su 11 heures jotee ma jot ñëw foofu nelaw mu daal vers trois heures et quelque la ma soxla si tëpp tëpp ni ma da nga ne moom da dem Dakar ma ko ah kon ma petit moom sax moom moo gunge ma ne ko kon jógal gunge ma ñu dem macha allah ñu ngi jégalu bu baax cher ci retard di ñaan yàlla may ñu fekkee waat ko at yu bëri euh, ñi nga xam ne ñu ngi leen di rendre hommage macha allah te muy jàll ci kii bi euh, ñoom ñëpp yàlla leen yàlla yërëm yàlla yoon bu fi jógee yàlla bu leen ci kenn ëppalee. di ñaanal xalifa bi suñu sëriñ fanu gudd ak wér ak sutura bu sax ci barke yonente bi sal allahu alayhi wa sallam loolu lépp luy bëgg-bëggam lépp luy naanam yàlla defal ko ci lu ëpp na ko bëgge woon ci barke yonente bi sal allahu alayhi wa sallam xam naa ñu àndandoo jàng ñaan bi di nuyu sama sang bi tafsir macha allah sànq rek laa jëf Moustapha Gaye ca Maroc fu mu gis wax ko sànni ko xeer ñu ko yow doo sang sang nga waaye doo sang tafsiray sang bi macha allah ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu frère suñu lépp macha allah Ousmane Sarr ñu ngi koy nuyu saako saako waaw am na am na gisuma ko gisuma ko woon saako saako saako ak sëñ Lam Tooro ak xaaj Sega ak Habib Saako macha allah ak Jima wala Junior ama astafurlah sa alamin macha allah. kon ñu jàng fatiha salaatal fatiha ayatul kursi lixlaas falaqek naa si tëje ko salaatal fatiha lépp lu ñëw àdduna bu ñu xam ak bu ñu xamul yàlla nañ ko ci yàlla defal lépp luy safaan àdduna ak àllaaxira bu ñu xam ak bu ñu xamul yàlla nañ ko ci yàlla dàqale defal ñu yiw àdduna ak àllaaxira te yërëm ñu ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam aoudu billahi min shaytan rajim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 الذي يوسوس في صدور الناس من الناس بسورة الناس وسورة الفلق نعوذ من شر جميع ما خلق وقد تحصلنا بصاد الصمد والحاء والميم من محمد واسم الجلالة وباء البسملة وآية الكرسي ثم الحوقلة بأهم وسقط وحلاعي وهي المحرك والمسكن لكل ما وقع في الوجود من الخيرات والشرور وفي حكمك الحد والعقل لجميع الأمور يريدك عن مشيئتك تصارف الأقدار والقضاء المطلوب أنت أعلم بعجزنا وضعفنا وقد وقفنا من بابك مستغيثنا بك في صرف ما يحل بنا من الشرور وما يجري به تعاقب الدور ما لا قدرة لنا على تحمل ولا قوة لنا على ترك وأنت العفو الكريم والمجيد الرحيم الذي ما استغاث بك مستغيث ولا توجه إليكم اللهم يا من لا يمنع من إجابة الداعي كثرة ذنوبه ولا إصراره ولا سوء يا ذا الجلال والإكرام يا من قلت ادعوني أستجب لكم ها نحن الفقراء المضطرون ندعوكم منتفلين بأمرك مستمد ندعوك باسمك العظيم وبنبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جل بإجابتك أن تسترنا سترا جميلا في الدنيا والآخرة وترزقنا توبة نصوحا قبل الموت إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة قبل الموت وحلاوة الإيمان وحسن الخاتمة وهب لنا حلاوة الإيمان مع الغنى وصحة الأولاد وهب لنا ربي بجاه هذه خاتمة حسنى مع الأولاد ولقاءك تعلمنا راض وفي عامنا هذا وفي شهرنا هذا وفي أسبوعنا هذا وفي ليلتنا هذه وفي ساعتنا هذه المباركة أعطي لكل واحد ما ينفق على عياله فأنت المنفق فضلا منك بجاه هذه وحالنا عليك ليس يخفى ارحم بنا ربي بجاه المصطفى ارحم بنا ربي بجاه المصطفى الحمد لله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم اللهم إن ترحمنا فأنت أهل وإن تعذبنا فنحن أهلون فارحمنا يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين حل بيننا وبين كل الظالمين وشره فينا إله العالمين حل بيننا وبين كل ما يضر وكل ما يخاف بارئ الصور حل بيننا وبين ما لم يكن فيه رضاكم يا عظيم المنن ووقنا شرور ما نخشاه وأعطنا جميع ما نهواه من خير الدارين يا كريم تفضلا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من كلما ناداه مضطر أجاب دعاه اكشف اكشف اكشف قلوب المسلمين جميعهم وأغثهم منا بنصرك يا الله واكبت مصر الكيد واردد كيده في نحري وإله ما وكل ما لساننا يكل عن ذكره من الدعاء يا أول جلبا ودفعا يا إلهي تممي لنا جميعا يا علي وعممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه